man de Aziz samedi laa mujjee gisante ak moom. ban waxtu. samedi ci guddi ay vers vingt heures keneen ki moom tamit dimanche. keneen ki moom mooy kan. waale ci moom la nekkoon dimanche laa ko seen fii ci balcon bi rek muy dem noonu lundi de la ñu affaire bi ñu sax dañu foog ñoom ñaar ñoo jàppante ci kaw ma dégg ay yuuxu. kañ nga dégg yuuxu. lundi ci huit heures ak ci seize heures. lundi si nga yuuxu lundi si seize heures nga yuuxu. huit ak seize bu huit heures bi ci saal bi bureau bi ci saal bi la léegi ma dégg yuux yi jóge sama néeg daw ci si saal bi xale yi ne ma am na kuy xeex ci kaw ma ne leen xeex man xam naa ñoom ñaar ñooy jàppante rek waaw loolu. ñoom dañuy faral di jàppante. noonoo non faraluñ ci jàppante mosuñu fee jàppante mais dama foogoon ne comme c'est la première fois ma ne jàppante la xalaatuma woon ne lii la am ñu ne ci biir 16 bi tamit ma tëdd fii déggaat tam ay bëtu bëri wuy yaay wuy sama nda yooyu après déggaatuma dara ay affaires yu sibit la daal. donc ñi nga xamante ne euh, nekkoon nañu si biir yàgg nañu foofu. loolu moom leeruma xaw ma ban heure lañ fi ñëw ak ban heure lañ génn. mën nga ñu wax yan façon yuuxu nga dëgg wuy sama nday wuy yaay yooy ak biir wi première bi deuxième bi ñetti yoon wuy sama nday wuy yaay yooy première bi moom benn la wax ak bir wi deuxième bi ñetti yoon ak biir wi. yow bi nga déggee yuuxu yi da nga daw si dem si kaw. non non première bi dëkkandoo yëpp ñu ngi génn ñi ñu jàkkaarloo kër ñëpp mais xam nga rek. appartement yi kenn duggul kenn moo tax kenn demul di àtteeg yooyu noonu dañu foog ne xeex la deuxième bi moom ubbi naa taxaw xool mais yegguma après ma ne ah ñii de ñu ngi xeex ci suba ba léegi war nañu bàyyi seen xeex ma dugg. mais lu tax bi ngeen déggee bruit yooyu ak yuuxu yooyu alerté woo leen police. dañu foone woon rek dañuy jàppante xam nga foogee xalaatuñ ko xam nga buñ ko xalaatoon moos buñ ko njortoon woo nañu police mais njortuñu ko. musu fee am. léegi est-ce que mën nga ñu expliquer néew yi nan lañ ko xamee. démba seen benn xarit bu leen di fréquenter moo fi ñëw ku jigéen taxaw fii di leen laaj mane sama janq bi sëppul nga ne kii ku muy seet ndax mi ngi inquiété wu sama janq bi ñëw ne ma nee nañ de diw lay seet ndax moom daa woon toog benn fan te du ko dégg mu am njort nag mu ne mu ñëw di ko woo jotu ko. mu wootam ki mu nekkaloon keneen ki ñu ray jotu ko nee na après muy woote di woote ku ne mu woo la léegi nag courtier bi day utalaate fii menuisier bi menuisier la en même temps courtier bi ñu utaloon kër gi ñu mujjee koo woo mu dajji ba mu dajjee ci la yem ci ñoom seen benn xarit moo leen doon seet ndax nee dafa toog gisu leen te daa woon toog te du ko dégg. bi ñu ko dajjee dafa fekk ñoom ñaar yëpp ñu faatu. waaw bi ñu ko dajjee dañoo fekk. ñu faatu mais man fekkee ma ko après maa génn ne lan la ñu ne ma déedéet duggal. jotoo yëg xool leen. yëgu ma fa taxaw ma fa. Uh-huh. après police ñëw scientifique police scientifique ñëw. loolu ban waxtu la amee bi ñuy dajji bunt bi. ay vingt deux heures et quelque. Uh-huh. waaw te affaire yi lundi la woon démb mardi nañ vingt deux heures. police bi mu ñëwee nag. police bi mu ñëwee yéeg xool. di xaar sapeur ba sapeur ñëwee nag ci la ñu yéeg dàq ñëpp ñu tëdd ñu loolu génne koor yi mais man gisuma koor ndax dañu dàq ñu ne fii ba fi kenn taxaw pompe fii yëpp. en tant que jigéen nga dëkk ci immeuble bi est que am nga xel bu dal. ñun koy amuñu xel bu dal ñun ñëpp suñu xel dalul ndax ñu ngi fi ak suñuy njaboot ak suñuy jëkkër te suñuy jëkkër yi dañuy xëy di liggéey suñuy xel du dal suñuy xel moom du dal suñu njaboot gi tamit ñu ngi fi. dañuy génn di jàngi di génn di def lépp boo amee soxla dem doxi ko amatuñ daal xel bu daal ci cité bi waaw a ci immeuble bi. tey lan nga ñu mën a wax si Aziz ak euh, ki nga xamante ne moom la nekkaloon foofu ñenn ñi sax wax ne jarbaatam la. waaw jarbaatam la la ñu wax ci li ñu wax man tamit loolu laa ko xamee papa la ko daan woowee doomam sax laa ko tegoon mais ñu ne jarbaatam la ndax papa ko daan woowee xale bi yaru na baax na am na itte jullite na am na diine am na lislaam Aziz jullite na am na diine am na lislaam waxtu du ko raw am na itte te mënoon na ne star la du ma faale kenn waaye am na diine am na lislaam am na itte dina nuyoo dina jaamasante waaw loolu